yag ngeen ñu gunge ci suñuy activité liñ ci gën a ràññee ci gis-gis ndax taxawaay bi ëpp na loolu mën nañu wax mooy daje bi ñuy wax concours remise des prix du concours général nga xam ne école sénégalaise mooy réew mi askan wi dañuy jël di ne dañuy feet feet feete li ñuy wax excellence jëmale ko ci xale yi nga xam ne ci at yi ñuy ñëw ñoom ñooy jiite réew mi loolu nag yéen Sonam leen yàgg di ñu accompagner nekk sponsor leader. moo tax kon mun ngeen comprendre ne tey bu ñu taxawee fii ànd ak yéen di recevoir ngeen ñuy jox lu toll ci ñaari junni table banc li nga xam ne valeur bi ëpp na 60 millions. il faut ñu taxaw waxtaan ci wane suñu mbégte mais wane mbégte Sénégal parce que Sénégal ngeen di jàppale ak askanu Sénégal bi ngeen di jàppale. communauté bi ñoom it war nañ ci dugal seen loxo muy parents d'élèves muy territé euh, communauté territoriale yi mais muy élèves yi nga xam ne ñoom am nañu ay gouvernement scolaire ci lycée yi nga xam ne dañoo war a taxaw ñoom tamit di xool naka la ñuy fexe ba infrastructure yi nga xam ne effort yu metti moo tax ñu koy am nañ lañ koy protéger di am ay programme d'entretien di soññ seeni encadreurs yi ak inspecteurs yi académie yi ak inspecteurs yi fi fi nekk ñu xool fexe naka la ñuy am ay programmes yi nga xam ne dañuy wax ndax ndaw yi wax leen lan mooy civisme bi nga xam ne bu ñu tàpp bokkee ci nga xam ne dañoo war a jàppale école yi mooy li ñu leen di laaj rek mooy ñu préserver matériel bi ñuy ñu sàmm matériel bi leen di jox sàmm bi nag mooy bañ ko yàq. président groupe Sonam monsieur Diouldé Niane moo ñu fi yebal tey pour euh, benn don bu ñu wax a defal euh, école sénégalaise un don de 2000 tables bancs président de la République son excellence monsieur Macky Sall sénégalais interpellé sénégalais par rapport à l'éducation par rapport à Ndjangoum xale les sénégalais pour euh, Sénégal soit prospère Sénégal mon émergent, émergent sénégalais investir ci éducation pour l'avenir de nos enfants pour sen Lolo en tant que sénégalais en tant qu'entreprise sénégalaise leader dans son secteur d'ISONAM Assurance Nuno avons euh, pour appeler euh, le ministère de l'éducation nationale faire euh, un don symbolique symbolique 2000 tables vent pour favoriser les conditions d'apprentissage de nos enfants à l'école